mi cinquante xam naa ñi may décroché ku ci nekk li ma waxtaan ak yow xam naa ko bés bu génnee xam naa heure bi ma waxante ko yow heure bi ma la ko yónnee bu dee message la wala bu dee ay ay ay capteur d'écran la xam naa ko parce que man je garde tout je garde loolu yëpp dama koy sóoraale léegi Babacar toure euh, euh, euh, sa sortie concernant Adji Sarr gars yi di ngeen di ngeen gis benn surprise dinañ dem jëli Adji Sarr dinañ ko comme ils l'ont fait la dernière fois parce que c'est des gens qui ne savent pas comment réagir ils ne savent pas réagir parce que pour ñu mën a génn wone ñoom euh, euh, euh, situation Adji il faut que nous nous def pression les gens comme nous, comme ñeneen ak ñeneen ak ñeneen pression comme nous l'avons fait la dernière fois et ça a marché cette fois-ci encore c'est Babacar Touré qui est rentré dans la danse xam la c'est Ousmane Sonko qui est rentré dans la danse plus ñun patriotes Bipa, ça vient même pas d'Ousmane Sonko, ni de l'entourage d'Ousmane Sonko, ça vient d'un journaliste d'investigation qui tout doux, Babacar Touré Quand il est indépendant il n'est pas là pour Ousmane Sonko la preuve barki de Mandiaye la le il a dénoncé les faits des différentes les les faits les démarches de de certains membres de passé, de ni de ci diwaan Casamance ni demoon dans un village pour aller intimider des vieux concernant la nuit du prophète sallallahu alayhi wa sallam paix salut hein, paix sur lui hein. Mais, euh, génn mais il a été attaqué dans des commentaires, il a été attaqué dans différentes pages. Hein? Soit disant qu'il racontait du grand n'importe quoi parce qu'il a souligné qu'il y a des gens c'est des patriotes qui ont fait leur délégation pour aller intimider des, vieux dans leur village. Hein? Concernant la nuit de, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Ils l'ont attaqué. Cela veut dire que il y a tellement de malades mentaux qui sont Facebook qui s'y promènent avec leurs problèmes pour qu'ils puissent se soigner dañoo soxla ku mel ni man su ma taalee sama connexion ñi ñëw ñi jël seen dose de médicament pour mun a calmer wu bu kali taalee ñi dem ci moom bu keneen taalee ñi dem ci moom keneen taal ñi dem ci moom keneen taal ñi dem ci moom te ils sont la façon dont ils le font dans les différentes lives noonu lañ koy defee ci sa whatsapp yi tamit ils rentrent dans les whatsapp ils vont t'amener de tout un tas de tralala tout un tas de sarabia à raconter léegi nag si toi tu es quelqu'un boo xamante ne bu quelqu'un boo xamante ne tu es paresseuse en matière de réflexion. Tu es pas en matière d'investigation. Tu vas pas chercher plus loin que le bout de ton nez, ou bien plus loin que ton nombril, ou bien ton orteil. Tu vas tomber dans ce piège-là. Tout ce qu'ils vont te rapporter là, tu vas le gober. Tout leur dire là en audio aussi, tu vas le prendre. Tout leur décroche que tu vas aller décrocher au téléphone aussi, qui vont t'avancer dans leur petit euh, truc là, tu vas prendre. Moi, j'évite tout ça pour ne pas rentrer dans ça. Maintenant, c'est Babacar Touré qui est rentré dans la danse avec les gens là de Adissar. Parce que n'oubliez pas, depuis au début, Babacar, Keoulo Keulo a été au devant de cette, de cette problème-là de Adissar Ousmane Sonko. il s'est même déplacé pour aller se rendre, pour aller rendre visite euh, à Ndekhadi au niveau de cet institut de, de, de, de, de, de, de massage-là. Hein, la propriétaire Ndekhadi. Khadi. a de passage avec son mari. You know? Juste un coffee, mou investigué, mou gagné des détails, wone lu bari, lo xamantene won les précédents journalistes ils n'ont pas su sortir toutes ces informations Mon il a pris les choses en main il a pris son temps il a investigué il est rentré dans les différentes pièces composant cet institut là ça a valu tout un tas d'insultes de postes de tout un tas de saloperies Ça ne ça l'a pas fait reculer c'est pas des dires d'aujourd'hui la partie que vient na wax a perdu la tête Adji va partir Adji est malade mais Adji va nous faire. sar warna warna na feber? sa feebar ça dépend ban façon feebar moo ko dal aji sar Warna na mu sa son être humain war na mën a mu sa mu dem hôpital aji sar peut se sentir mal mu dem benn ben clinique il peut se faire consulter à domicile sar warna war na jadd mu genn mu dem man dama koy def kenen def ko kenen def ko dañuy jadd parfois on boude sort de nos man su mère damay jël sama caabi auto ma daw ma dem def ji course Maintenant, quand je suis, quand ça ne va pas, c'est les magasins qui vont payer les pokas, qui vont, qui vont, qui vont, qui vont le sentir. Parce que demain, Je vais claquer, claquer, claquer, claquer jusqu'à que ma carte bancaire, quand je vais le faire rentrer dans le, dans, le truc là, ils vont me dire que madame, ça passe pas. Mon Google code, me dit ça, ça passe pas. Mon histoire, c'est historique, me dit que je suis à zéro. Pour moi, En ce moment là, je soupire fort, me reprenant mon esprit. C'est là où après que je vais venir voir que j'ai fait des essais inutiles le coup est déjà parti. Parce que c'est comme ça que je me dis. Non, là, il est défoulé. Moi, quand ça ne va pas, c'est les magasins. Comme j'ai pas les personnes là qui m'ont mis dans cet état-là. ce magasin est là, il est défoulé. Adji nit la mun na mer que nous nekk noonu ko héberger mu génn mu ñëw toog ci benn station ah, muy xaar tranquillement ñu ñëw dit ko neexal mu ne leen du parce qu'il y a ceci il y a cela héberger de gauche à droite Adisar aujourd'hui man bu ma né tay ben jaay kat moo moko hébergé wala ben maçon wala benn vulgarisateur wala Adisar ma Macky Sall moko ko wala euh, la première dame Mariam Faye Sall wala tel ministre du ma vous savez pourquoi Adisar jusqu'à présent elle est elle est hébergée par des personnes yo xamante amul ben lien de parenté ak ñom té dans des personnes dans des pays yo xamante que c'est des pays yo xamante que pays bobu loi mo fay dox pays bobu les gens ils marchent pas sur leur tête hein Adisar ne devait même pas être sous couvert de ces gens là sommes sommes gis dans l'histoire de viol dans le monde entier pour la première fois ni violé ni génn nee na violé on va le mettre sous couvert des gens Yo xamante que ne lien de parenté ak ñoom quand tu regardes au Sénégal le nombre de violés ni dañ leen di violé ba pare je prends le nom le cas de notre euh, sœur là le grand patriote là de Mariama Sagna plus les gens les les femmes là les enfants Oh, à, l'heure là que je vous parle, vous allez, vous allez de à la pédiatrie, dans les différents hôpitaux là, pédiatrie ñi am Sénégal, vous allez voir le nombre d'enfants, que ça soit euh, garçons ou filles, qui sont violés, qui sont hospitalisés à l'heure là. Il y en a à gogo. Pourtant, ils sont pas sous couvert. Ils devaient être sous couvert, ils devaient être sous la protection de ministre de la Femme et de Petite Enfance. Mais ils l'ont pas fait. Ils font pas leur boulot. Donc, Adissar, bon, a été programmé au suicide ok Nous avons ko tout un tas de panoplies de richesse Nous avons ko que que ce sale boulot là qui a entraîné la mort de 14 jeunes Koko mu a boudé là où il était a figué Adissar veut plus ce prison doré là qu'on lui a fusé depuis des mois voire plus de bientôt un an kooku bu genné mu dénoncé lolu ñu demaat encore ma toogaat ma gisaat ñi génnewaat aji saar ne ko ne kay nga tonga démentir man damay japp ne que ne c'est la répétition la rek li amone ka Ousmane Sonko est sorti mu wax ñu tek ñu tek ci quelques jours ñu gé dem dal di dem jëlee aji saar solal ko grand boubam boba ak réyuram buy bëri yooyu ah ñu jóge foofu ñu tegal ko kala bu ñuur ñu ne ko kay nga tonga wa c'est la même chose aussi lañ koy ñoo def tamit ci Babacar Keewuloo bi sur les dires là de Babacar Keoulo toog leen ngeen seetaan di ngeen gis Babacar Babacar Keoulo les la sortie de Babacar Keoulo soi-disant Adji Sarr a filé Adji ceci Adji cela dinañ génneewaat Adji Sarr ñi ñoo tegal ñu ko ci kanam wala ñu jël Adji Sarr dugal ko ci benn live te ñi koy dugal ci seen live yi xam ngeen ko bu baax madame j'attends l'actualité Amna na ñoo xamante les déchets de Facebook là les vieilles déchets de Facebook là ils attendent que ça

moom la concerné ak fi mu jëlee source mi ak ko ko jox ak moom miy toog mu wax ko moom la man li ma ci mën mooy écoute bi ma ci am jàngat bi ma am ci situa ci ci ci ci les dire là dans cette vidéo là de Babacar Kéwoulo man loolu laa ci am après man je ne vais pas venir m'asseoir pour dire que ni Babacar Kéwoulo li mu wax amut lu muy def baaxut li ñu ko li mu doon wax yépp amut est que man mii di wax loolu man momu nonu di avancer loolu ñima wo nonu ne ma ñom ñoo jox babakar fake news bi est-ce que du ñom ñoo ñom ñom du man mi est-ce du man la nek di jox fake news parce que ke wulo peut se tromper mais man mi genn tamé may babakar ke wulo dafa tromper wu est-ce que man du man tamé tromper wu ma Motay man j'aime pas tout le temps passer par derrière les gens j'aime pas wa nga li ngay wax yow la concerné man je suis pas là di nan damay tibb sa tank wala di di la contredire man su ma génnee nan laay def pour ma indi la si j'ai l'occasion de te attirer pour que nga vi pour te pour te pour te responsabilité face à face à te loolu lay ñoo def nii damay woo Babacar Keewulo dinaa ko indiwaat ci problème Adji Sarr bi mu wax ñu fan la teg moom li mu doon wax noonu barki dëmba voilà comme ça ñu déggandoor ko mu leer ci bopp ñëpp bu ñu paree moo ubbil leen ligne bi ñu jël quelques personnes bu ñu paree ñu tàggatoo quoi parce que toogaay bi yàgg na ma jëlaat Babacar kee wuloo vite fait d'accord Mon ne ma rappelle-moi si ton émission n'est pas terminée non c'est pas terminé ñu jël grand grand Babacar kee wuloo Allô? Oui, grand. de ngi hein. Je j'ai pas vu ton. Ah. ton message voilà. maa não, pare nga pare ngeen wala. non non pare wu juste dama bëggoon nga répondre ci dernier message bi moom le sénégalais yi di xaar yëpp après ma libéré la si c'est possible. Mhm. waaw grand nga génn barki démb je ne sais pas deux jours ou trois jours tu as fait une révélation concernant Adji Sarr fu mu nekkoon. Mhm. fugué bu mu essa station bi mu toog. Mhm. les différents euh, détails yi nga joxe vídeo bobo. Euh, euh, vidéo Les ah, sénégalais yaa lay dëgg apparemment euh, il paraît qu'il y a de ces gens qui se autoproclament que nous, ñoom la jox c'est fake news c'était une fake buñ la jox comme comme comme mhm. comme comme information Yo, nga Tok, nga wax ci mhm. loolu duma la laaj ces ah, source <coughs> waaw mhm dafa am ñu ne ñoom ñoo ma jox fake news man ma diffuser fake news. waaw il paraît que li nga avancé yëpp dans ton vidéo là dans euh, dans cette vidéo là. Ah. concernant Adji Sarr. tegal naa ko mhm. sénégalais yi te bu ma bu ma coupé mhm. yow dama koy tegalaat encore sénégalais pour ñu gën a mën a comprendre nee nañ li nga ci wax yëpp. Mhm. concernant Adji Sarr. ba fi ñu toll nii ñu ne daara amu ci loo xamante ah. ne lu am la y a de ces gens yoo xamante ne. qui qui t'ont manipulé sans que tu le saches ñoo dugg ak yow mhm. en contact jox la ces fausses informations là yow nga génn nga live ci lan ngay waxal sénégalais yi parce que aduna bi yëpp a ngi lay déglu. <laughs> déjà man li nga xam ne moom la ñu wax la manipulation ci wàllum naka la ñuy jox euh, information loolu bi ma ko bi ma bi ma xamee ba weesu loolu dafa yàgg. Mhm. dama leen wax ni ça fait dix neuf ans deux mille trois laa commencé journalisme deux mille trois tey calculer ñaata année.

en dehors de Adji Sarr Adji Sarr woo ma ko euh, Me El Hadji Diouf woo mm-hmm. de ñoom képp kuñ ma tuddal woo naa la wax naa ak yow te xale jigéen bi nga xam ne moom mooy activiste bi mu tudd ne moom mooy héberger Adji Sarr bi Adji Raby Sarr mm-hmm. woo woowuma ko mais wax naa ak ay mbokkam mm-hmm. ñu wax ma clairement ni il faut pas que ñu mettre ko en danger. Mm-hmm. parce que moom yaay la. Mm-hmm. moom yi yërmande moo ko dugal ci yëf yi. Mm-hmm. mais du pour mu bok ci complot. d'accord yaa ngi may dégg. bu baax. ñu tuddal ma ñu tuddal ma ay kilifa. kilifa yu respectable ci réew mi ma wax ak ñoom. d'accord kenn ku nekk mu wax ma rôle bi mu joué. Légui. bu fake news la bu dee manipulation la kon Canada nous manipuler waale. kilifa yooyu yëpp am kilifa yu ma am kilifa yu ma tuddul. comme yan kilifa nga tudd. bu dee bu dee mais bëri na ñu ma tudd bëri na ñu ma tudd. mën nga leen tuddaan encore fii ci live bi grand ba ki ci. Mhm. waa ki ci mujj. Mhm. ki ci mujj ki ci mujj mooy Ousmane Sonko te muy suma nawle. d'accord muy Ousmane Sonko te muy suma nawle ma ni leen li ma wax dafa leer dama ne. nañu dem négo jéem ko jéem a négocier ak moom. Mm-hmm. pour mu xool naka lay def parce que Adji Sarr dafa décider wax dëgg ndax moom mu arrêté bu mu ko top dama wax Sénégal yëpp dégg. Mm-hmm. ma Sonko daf leen xamal ni Adji Sarr na delluwaat ci mu jaaroon mu wax fal mu wax ni lépp manipulation la bu ko defee moom du ko toppee dara xam nga wax naa mm-hmm. loolu. waaw. Pastef Pastef du du du du ñu ay ay ay nu ñu euh, ñu ay ay ay muma.

dafay braqué wu lañ ma wax. waaw mais man yoon nekku si Adji Sarr mu braqué wala mu bañ a braqué li sama yoon nekk mooy information boo xam ne sénégalais yi soxla nañ ko. Mm-hmm. mooy damay bañ. dama ne lu soor d'une marionnette c'est de disparaître à la fin du spectacle li may bañ mooy <laughs> ñu pare moo am lu ko dal. Mm-hmm. ñu naan diw la diw la yaa ngi may dégg. Mm-hmm. li may bañ mooy Adji Sarr moo am dara lu ko dal. ñu naan diwla diwla diwla ndëgëm ñi ay professionnel lañu ci tappalee ci nax nit ñi. Mm-hmm. parce que ñu ngi préparé l'opinion li wax ni fu mu nekk nii aji mënut a génn mënut a dem marché mënut a dem fenn. Mm-hmm. parce que dafa ragal ñële dafa ragal ñële alors que la réalité mooy que aji génn seen loxo yàgg na. aji saar ma waxati ko génn seen loxo yàgg na. d'accord woo nañ ko négocier nañu ak moom nee na dematul. ñu woo benn avocat bu góor pour kooku récupérer ko ndëgëm nee na bëggatul dellu fi mu nekkoon mhm. nee na topp du demati encore kër avocat boobu moom daal jóge na ci fu mu nekk mu daal di nekk ak benn ku jigéen koo xam ne activiste la mhm. ku jigéen kooku mu ngi tudd mer mu ngi dëkk Mermoz du mu tudd turam d'accord pour protéger ko mhm. parce que ay mbokkam waat nañ ma ay mbokkam waat nañ ma bamtuwaat nañ ma nee nañ ma daf ko def ngir yërmande am détail yu bëri tax yoo xam ne du ma ko wax parce que su ma ko waxee nit ñi mënuñu remonter à la personne parce que gis naa depuis démb gaa yaa ngi mel ni ñuy joué ay dóor euh, xamul nga wax de dëgg net. waaw day dëgg net waaw waaw mais du ma joxe du ma joxe nit pour la protéger maintenant. Mm-hmm. <clears throat> depuis vendredi dernier dimanche la leen waxoon ni am Parce scoop. parce que ay mardi mercredi qui ci commencé liggéey. Mm-hmm. vendredi là, qui paraît liggéey dimanche ma bëgg ko def émission. d'accord mais. boobu heure boobu ma doon wax ak yéen ak boobu ma doon ma doon wax ak yéen ci dimanche bi. Mm-hmm. depuis vendredi Adji Sarr mu ngi ci hôpital. léegi nee nañu ma non nekkul hôpital génn nag ay wéru wéru nag dara jotu ko loolu ça n'engage que eux. waaw man ku ma xam xam ni man jomb naa di wax loo xam ne du dëgg. jomb naa taxaw nit jox ma information du ma vérifier information du ma ko recoupé ma taxaw di ko di ko wax. Mm-hmm. dépassé naa loolu. Mm-hmm. waaw te ñi wax loolu. <clears throat> lañu xamul sama parcours dañu xamul kan man may kan ak sama jaar su ñu xamoon sama jaar man bu duñu xalaat mukk ni naa joxe fake news dinaa joxe wala dinaa joxe information boo xam ne manipulation la ñu demal ma ma dem ma dugg ci loolu mhm. waaw xam nga ñoom seen carrière ñiy wax loolu seen carrière ak suñu affaire peut être ci facebook bi la ak ci youtube bi la man dama dépassé foofu mhm. man li may def dañ koy dañ koy jàngale dans les écoles de journalisme li may def dañ koy waxtaanee dans les hautes sphères ay place ay kilifa fu ñu toog dañuy toog di waxtaanee suma liggéey. Mhm. donc man dama jël loolu ma di ko asaaloo asa bombe di jouer aux amateurs du ma ko def. waaw mhm. ah. mais dafay mel ni la ma leen la ma leen musa wax rek ci lu bëri su ma leen waxee ñi nga xam ne ànduñu li may wax arrangé wu leen dañuy taxaw ñu lu dëgg. mais bu ñu demee ba ci biir ñu gis ne lépp li Babacar Touré waxoon dëgg la parce que man dama am ay nawle. dama am lu ma jomb dafa am foo xam ne bugguma kenn dégg fa bugguma fa kenn gis ma fa dafay leer nañ lu leeru du ci dugg Adji Raby Sarr génn na seen loxo Adji Raby Sarr déconné na Adji Raby Sarr nee na dafay wax parce que luñ ko digg yëpp defuñu ko dañ ko fay donc loolu laa waxoon démb loolu laa leen waxaat tey. léegi grand. dogu amul loo xam ne waaw. dama bëgg mën. man na taxaw man na taxaw ma ni leen diw laal na ci diw laal na ci diw wax na ci. mais lu bari lo xam ne waxaguma ko parce que bu ñu mettre personne en danger man. damay woote jamm duma ma lo loo benen ne beneen doomi aadama dina sentir fitna ci kawam. ñu ne Babacar Touré moo tax mettre en danger loolu du ko def. merci sama conscience mayu ma ko voilà. léegi grand. Euh, encore une dernière mhm. question après ma libéré la xamna da nga japp euh jàpp euh, léegi euh, mhm. grand Adji Raby euh, supposons comme de la dernière fois le président Ousmane Sonko tamit Vous mu génnee ah. Euh, euh, mhm. contrecarré euh, l'avocat de Adji hein, et les gens mhm. de de de de Benno mhm. on a vu qu'ils sont allés déguiser cette cette abi abi Adji Sarr sont devant la scène. xam nga maquillé ko de tout un tas de panoplies de de de branché partout comme quelqu'un qui est en salle de réanimation. gis nañ et après ça s'est soldé à un échec à une fiasco dis nañ de du communication. Mhm. léegi yow. Euh, mhm. encore ma posé la euh, ma kii la euh, bu encore si bu demande demoon encore jëliwaat encore Adji rabissar, le déguiser comme ils l'ont fait la mhm. dernière fois après la sortie de Ousmane Sanko. la déguiser de la même sorte aussi ñi ñoo au devant de la scène Hein, pour mu ñëw mu contredire tes dire comment quelle sera ta ta réaction après. Adi, Adji Adji Sarr du def loolu du defati loolu Ben. parce que la woon nekkatul. deuxièmement man euh, man ni dama dama leen ne xam dama leen ne ma préparer livre. waaw xam nga loolu laa leen wax Sénégal yëpp. Mm-hmm. xam nga ci aji dégg ngeen dégg ngeen euh, Sénégal yëpp dañu wax ñu ne euh, comment il s'appelle Sidi Ahmed Mbaye ak euh, wax avocat bi wax bi wax lii. yaa. man yeneen laa yor yu bokkul ak loolu. man yeneen laa yor yu bokkul ak yooyu. dama lay tuddal ay turu kilifa dama lay tuddal ay turu ay député dama lay tuddal ay turu kilifa yi kilifa yi diine. ñoo xam ne ils sont impliqués dans cette affaire ba léegi kenn waxu leen dama lay tuddal ay réunion yu secrète ak diw moo fa fekkee diw moo fa fekkee. am nga mm. Adji Raby dama taxaw naan gelu ñëpp dama taxaw naan gelu ñëpp la ñu naan na ngeen ko porter plainte porter leen plainte Babacar Touré. Mm-hmm. damay wax Adji Raby Sarr fu mu loué woon néeg ak lu mu fa doon def. dama leen di jox tous ces détails là man du ma man du ma fowuntu quoi xam nga li ma la wax. Mm-hmm. man du ma je ne fais pas journalisme de météo du ma def Euh, live Facebook nek, man je suis journaliste d'investigation ça veut dire quoi Ça veut dire damay gëstu ba gis benn affaire nga foog mën ne noonu affaire bi du loolu am na leneen lu ci ginnaaw may seet lan moo nekk ci ginnaaw loolu lan moo nekk ci ginnaaw loolu lan moo nekk ci ginnaaw loolu man loolu laay def. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. ku mën a toog Sénégal ngeen ne ñu ne ñu ne ñu ne la ah, comment il s'appelle xale bu jigéen bi ñu ne la jaari saw réer na Sénégal police français ñu ngi koy seet gisuñu ko police Sénégal ñu ngi koy seet Sénégal yëpp jaaxal sa nekku fa mu toog mu ne la Adji Raby Sarr mu ngi Belgique Euh, ku jigen ki mu ngi Belgique ngeen dem seen Belgique ngeen fekk ko koku bu len na Adji bi sar xamna ci mom lu beure ngeen mën ko gëm. hmm may deg man duma duma duma duma legui legui biñu commencé suñu débat bi. Mm-hmm. da lan nga wax euh, ban de ban lan nga doon wax waxu bofa fa lañ doon wax. ya mo gëna dangereux. waaw mo gëna confidentiel. mo mm-hmm. gëna secret. Mm-hmm. ma enquête ba am ci luma ma xam. Adji bi sar mi dëkk di traîner digënté Pikine euh, digënté Pikine ginaaw raay ak ak Grand Yoff ak euh, comment on appelle west fa duma xam lu mu fay liggéey ak lu mu doon def dama bu ko dama dama soxal ma buñ ma buñ ma buñ ma pousse ma précipiter la sortie de mon livre parce que mënuñu ma sax précipiter loolu dañ koy defal koo xam ne amateur la quoi man j'ai mon calendrier sama calendrier maa ko maîtriser sama bopp mhm. li ma la mën a wax mooy aji rabi saar dañu la gënal audio ñu ne aji rabi saar nee na wala ñu ne la dinañ ko def lii mais aji rabi saar toog elage jouf toog ñu takkal ko micro mu defar la mu defoon du ko defat parce que liñ ko digoon yëpp gisu ko Et elle a perdu ça, elle a perdu, elle a beaucoup perdu dans cette histoire-là, te loolu xam nañu du ko gagné. te nag mun naa la tuddal ay nit ñoo xam ne ñoom la loué la doon néeg di def di def nakasul nonu mun naa mun je peux te donner plein plein plein détail mais du ko livre laay bind livre. non non bobu nag koy may après. defal livre bi ba nga paré grand. té lenn te lenn naa la ko té lenn naa la ko wax. Mhm. te lenn la ko mhm. jugement du am ci affaireu Adji Raby Sarr jugement du ci am parce que Adji Raby du nangu dem tribunal loolu téye tay bind ko muy téere ñoom lu ñu nekk def tey mooy jéem a xool nu ñu arrangé ak Ousmane Sonko pour bàyyi affaire bi mu sedd li booy naan bàyyi mu sedd ci loolu lañ nekk voilà. après les quatorze morts là nga ne ma jugement du am grand loolu nga teg ko fan. jugement du am benn jugement du am. fan nga ko teg grand fan nga teg loolu fan nga teg loolu quand même fan nga teg loolu. ah tey man maay jouer ce rôle bi fan nga teg loolu grand <laughs> pourquoi taa taa taa waaw pourquoi nga ne ma jugement du am. waaw léegi waaw. léegi parce que parce que kuy football parce que kuy football. yaa. kuy fut ku ne da ngay football da ngay am équipe de football. exact. ah. exactly waaw. ñoom amuñu équipe de football kan mooy seen équipe de football Adji Raby Sarr kase la amuñu élément pour Adji Adji Raby Sarr boo waxee Ousmane Sonko wax il faut moom la ay élément yoo xam ne mooy mooy infirmer wala confirmer waxu Adji Raby Sarr. ah yaa maître El Hadj Diouf yaa maître El non loolu loolu la loolu loolu loolu la ñuy la ñuy wax loolu la ñuy wax témoin wala avocat. mais il y a des éléments concrets probants qui permettent d'asseoir la conviction. à ci dossier premièrement. deuxièmement t'as dit, xam nga ñu juge d'instruction la ñu nommé le premier cabinet nous ñu ngi exact. parce que tout le monde tout le monde dans la magistrature nous xam nañ ni dossier bi amul amul fondement lu amul base lu amul fondement a amul dossier de fond qui sont jugés. jugé. naka lañ koy entendre. bu mm. ñu entendre Ousmane Sonko dañ ko war a confronter par rapport à des éléments yoo xam ne enquête bi moo leen permettre pour ñu am ko mais amuñu benn élément bu leen enquête bi enquête bi permettre ñu am ko nee naa la nit nit bu ñuy doxaanante le minimum man ak yow ñu ngi wax nii fu mu nekk nii lan la ñuy waxante du téléphone. waaw. parce que da nga xam sama numéro téléphone nga woo ma moo tax ma mun a wax ak yow. exact soo xamulee sama numéro téléphone fan nga mën a taxaw nga ne Babacar Touré xam naa ko damay wax ak moom. amul élément. amul élément Adji Raby amul numéro téléphone Ousmane Sonko. Adji Raby Sarr bi ak numéro benn yoon bu Ousmane Sonko ñëw ak numéro boobu musul am ok donc Ousmane Ousmane Sonko bu ko neexoon mu ne mosuma fa dem waxul Ndeye Khady la Ndeye Khady moo naan ñëw na fii Ibrahima ne ñëw na fii Adji Sarr ne ñëw na fii Ousmane Sonko dem mosuma fa dem mosuma fa dem am dara lu ñu ko prouvé. waaw da nga waaw mais deuxième chose tey dafa am ay raté yu bare xam nga xam nga tey euh, enquête judiciaire bu ñu mën a def ci Sénégal. Mhm. wala mu mën a nekk ci monde bi dañuy njëkk a def réquisition téléphonique. exact waaw réquisition ñu xool kan moo woote kan ak ban heure yaa ngi fàttaliku coow Aby Ndour ak euh, ak Atepa. yaa les bornes les bornes du matin les bornes d'appel yaa ngi fàttaliku loolu. bi ñu bi ñu xoolee ci dossier nee na ñu gis ñu benn yoon bi nga xam ne Aby woo Atepa woo na mm-hmm. mais lu tax waxu ah, lu tax dossier Adji Sarr waxuñu leen réquisition. parce que dossier boobu dossier boobu daf dañ ko bokkalul ci dañ ko ci bokkalul sax parce dañu gis ne amul dara. nee naa leen section de recherche bu ñu fa indee nit affaire de viol c'est gendarme ñooy bind réquisition nga dem ci nga dem ci médecin bi bi nekk hôpital principal mu consulter la mu jox la enveloppe boo xam ne enveloppe bi sax du la ko jox yow gendarme la koy jox gendarme bi moo koy indi. Adji Raby Sarr ñu fexe ba duñ ko yóbbu ci voie normale boobu donc ce qui veut dire toute chose bi nga xam ne jëlee na ko indi na ko comme élément de preuve juge bu normal da koy annuler day annuler parce que loolu la ñuy wax des preuves irrécevables. ok yaa ngi dégg. troisième chose. troisième chose. Mm-hmm. la ñuy wax li ñuy wax. La première, de, quand, il y a, quand il y a un débat contradictoire, quand il y a des accusations portées, surtout en matière de crime, mhm. sur une personne, mhm. dañuy wax lu ñuy wax transport sur le lieu du crime, du lieu présumé du crime. Mhm. nit ñi gendarme yi dañuy déplacé wu ñëw foofu ñu photo ñu filmer ñu enquête. Gendarmerie dem nañ fa bu fekkee ni man lire naa document document au gendarmerie bobu xamna lan lañ ci bind mais man se déplacent. wu naa may le seul journaliste au Sénégal bu dem ci Sud Beauté. wax ko seul ko Sénégal ma lay dugal même Sud Beauté Mhm. mais duñ leen suite boo tee dañ koo fomp ak dañ koo defar ak dañ koo changé tappale rek. ñoom image bi na am image bu bëccëg ndar tàmbalaa dem taal lamp yëpp filmé pour ñëpp gis. xam nga dégg léegi suite suite boote boobu bu fekkee ne Ousmane Sonko wax na d' accord eh, eh, ku jigéen ki wax na d' accord ñu. Mhm. juge d' dafa war a def déplacement juge d' instruction dafay def déplacement mu dem def lu ñuy wax constatation. xam dégg pour constater les faits reconstitution des faits. des faits indi Sonko indi euh, kan euh, parce exact.

dañ koy clôturer ñu def ci kii ñu interdit ne kenn du dugg bu fa kenn du modifié dara dama dégg mm-hmm. tey tey <laughs> tey modifié nañu seen crime boobu nak nga bëgg nak ngeen bëgg moom moom moom jugement bu ñu jugement la lañ fay yóbbu grand nga né dañoo dañoo dañoo changé dañoo ils ont modifié la la scène de crime allô ñi fa dëkkoon dañ leen génnee ci kër gi ñi fa dëkkoon uh-huh. ñi fa dëkkoon fauteuil yi naka la ñu tege woon ndey xar yi jënd na génn na ay bagage am génn na ay jacuzzi am génn na bagage am ñëpp ci biir kër gi kon la scène de crime a été modifiée. waaye a été de scène de crime donc tey tey jii tey jii bu ñu bu ñu xam fan nga nekkoon. waaw waay waay donc enquête bu sérieux mënu fa am bu comme enquête bu sérieuse mënu fa am il pas y de jugement il pas y de dossier bu ñu présenté devant un tribunal pour un jugement mënut a nekk ñom luñu def kay moy dinañ def luñu wax insulte à la justice dinañ def lo xamné Sénégal rek la mat amé dañuy génne tapalé bu rëy né leen sëriñ si ñoo né ñu teg lépp ci suuf léegi teg nañ lépp ci suuf légui nak fu muy nexé moy luñ naan lu doom lu tay doom dina neex ndayam bu ñu ne dañu teg lepp ci suuf nañ leen laaj fukki bakkan ak ñent ñoo nga xamné ne fennu aji saar moo tax ñu am nañ ko lijjanti ak ñom lool moy c'est ça la réalité exactement euh, dañu dañu créer lo xamné ne mënuñu xam sax naka lañ ci génnee

parce que Mamadou Seck kérok bi Ndeye Khady duggee ci birom Ndeye Khady mok mook euh, Ousmane Sonko ñom ñaar ñep lañu entendre même jour le 3 biñu entendre Ndeye Khady dañ ko laaj ñu ko est ce que Ousmane Sonko violé na kéré daf ko na ne alaykum na nga def na ko no tuddu mu ne ko Ndeye Khady daal ko daal dañ leen message mo xam mu ne ko est ce que est ce que Adji Sar Ousmane Sonko violé na ko mu ne ko déedéet mu ne ko Ndeye ñi ñibbil sa kër dama sa kër loolu la ko wax ñi ñibbil alors que ñom dañ ko ñom dañu bëggoon juge dañu bëggoon juge bi duggal ko ci kasso bi mais dañu duggal nit ci kasso bi fekkee am nga élément ñu ñu nous bu Ousmane Sonko la même chose la Ousmane Sonko daf ko kidnapping japp ko ci yoon bi nous, ko ci kasso bi nous. ko ci dégg. bu baax bu élément ok élément élément juge premier cabinet juge huitième cabinet juge premier cabinet juge premier cabinet dañ ko juge mais dossier pour te montrer pour te dire que comment ils sont faux

man loolu mënu ma ko comprendre mënu ma ko accepter Sénégal léegi nag fi may jeexale mooy. Mm-hmm. Euh, booy mën a atte nit. koo sàcc boo jàpp lañ naan yow yaa sàcc lii yow yaa sàcc li nga ne noo sàcc ma ñu ne indi leen seede mais euh, comment il s'appelle euh, soxna si. naam à part Adji Raby à part Adji Raby Sarr. Mm-hmm. jigéen bu baax bu ne. sooy génn sax ak nit dengan leen di présenter say xarit wala dina xam ko xamni ni diw ak diw ñu ngi genn lu aji kan mo mën wax ni ousmane sonko sekk na dara ak ak ak aji kenn du ko def na kenn du xaritu aji rabi sar du kenn du kenn koo xam ne la ko wax tay aji rabi nak lima ca waxon bobu gi parce que man euh aji dusmo duma duma xëccu xëccu ma ak mom borom suma moromu doom la hmm. dama dégg nurug moom waaw mais suma doom la parce que man ma fi elle a 18 ans aji rabi sar nañu 21 ans 23 ans la am dama dégg euh, li ma bëgg a wax foofu mooy mënuloo gis sénégal ben mburaacoo yoy mënu gis benn yaayu normal bo xam dina taxaw mu ñëmé né aji rabi sar sama dom la bot nako do gis ben pa bu normal bu ne la à part faabu ramassar mu matadi bobu doo gis benn paa bu normal bu taxaw ne la Adji Raby Sarr sama doom la. te ñëpp ñu live oh, oh, oh, mettez-moi des cœurs mettez-moi des cœurs ñu ngi. <laughs> coupé wuñu ko mettez-moi des cœurs s'il vous plaît. kenn à? như ta taxaw ñëpp xool de boo xam ne amu mettez-moi des cœurs amu ci grand yow demal ñu ngi lay déglu kenn koo

lañu sétane rek ba ci kanam mais leneen moom xam naa ko. waaw man te duma manipuler dama dépassé fi may manipuler quoi dégg nga. bu baax a baax. dañ nekk di signaler live bi grand kontaan naa. kontaan naa xam naa day nekk di signaler li nga wax dafa am solo. maa la doon bëggoon a laaj sa sur de fait de fait que ni le ministre de la justice mu mhm. amoon lu mu musoon a wax ci dossier Adji Sarr Ousmane Sonko bi mu toogee mhm. nee mhm. na. Adji Sarr Ousmane Sonko c'est deux adultes yoo xamante ne que ni kenn ki accusatrice la kenn ki c'est c'est un accusé ko euh, accusé mais mais uh-huh. ministre de la justice ministre de la justice mm-hmm. moi des cœurs pompez-moi des cœurs. Uh-huh. Mm-hmm. yi ci biir dossier bi. Mm-hmm. ñu sous mandat de dépôt. merci. alors que ministre bobu mo juge d'instruction mu placer Ousmane Sonko ci mandat de dépôt. dès le début. Ah, d'accord mais tey tey tey nee na amul dara ci doo dossier bi loo xam ne tax na ñu mën a placer euh, euh, comment on appelle aji euh, Ousmane Sonko ci mandat de dépôt c'est-à-dire que seen seen lu ñu waxoon démb la ñu dalwaat tey ñu weddi ko jeex tàkk. doy na waar ah. jaajëf. merci beaucoup grand. di la jaajëfal Kéwoulo. naan merci beaucoup. ci sa teewaay si sama sama direct bi. xam naa dinañu a l'avenir ah, dinañu continuer man daal damaa bëgg nga continuer ma daal ci liggéey bi. yow damay doon sa taalibe daal nga dama ko ci liggéey bi de temps en temps nga man dama lay bàyyi léegi boo boo génnee ay révélation boo paree ma jëlaat la ne la tip indi la fii ñi ñi gën koo fësal tamit mu gën a jëm ci kaw yàlla baax na jërëjëf merci beaucoup grand merci bien des sos a tout le monde bon week-end au merci merci voilà kooku nekkoon suñu grand frère le grand euh, euh, euh, patriote le grand journaliste di Babacar Touré Kewulo yéen a ma ko gën a xam gars yi dañu bëggoon a